pas inquiété loolu neex ngay def aide de la aide à la presse bi mais xeexukaay lañ ko def loolu mooy dëgg aide à la presse bi xeexukaay lañ ko def ñi ànd ak ñoom la ñuy compal lu duun lu baax jox leen ñu àndul ak ñoom taxaw fi ñu taxaw garder seen ligne éditoriale ñu jox leen la leen neex waaw patron de presse aussi aide à la presse bi na yegg si ci journaliste yi ak ak ñi liggéey ci ci mbir yi. parce que tu vois des stagiaires nangam fii gars yi sonn ci le terrain aide à la presse boobu na yegg ci ñoom parce que bu ñu aide à la presse rek ñu téye ko ñoom it nangam aide la non non déedéet aide à la ci ñi nga xamante ne mooy les ayants droit ñu sentir ne aide à la presse bi ñëw na mais bu ñëwee tout le temps doo ko dégg ci ñenn ñi da ngay dégg aide à la presse rek tey euh, suñu millier bi mais y a la précarité. mënuñ ci ñàkk wax l'actualité oblige. yëf ya xew CDC diggante mandataire bu Pastef ak directeur ba lam ca jotu wax itam dégg nga ko ban jàngat nga ci def. waaw mais mbirum CDC moom xam nga Sénégal il faut qu'on en revienne aux prérogatives hmm? li gën a garaaw mooy dañu dem ba politiser notre administration dañu dem ba tey justice quand un homme de droit bu taxawee dire le droit mu doon mu doon mu doon mu doon surprise mais li gën a garaaw tey jii mooy CDC euh, hmm, dafa am ay prérogatives. yoo xamante ne moom lañ ko jox mais DGE aussi dafa am ay prérogatives lu ñu ko jox ñoom ñëpp dañu jàll seen prérogative ndax DGE son rôle mooy ku ñëw jox fiche par exemple jox la CDC mooy ku ñëw di déposer caution ñu jël ko jël chèque bi war na leen dép dép déposé nga mais lan moo waral bërti bërti beeg daw geeg te en plus ñu xam ne moom mi nga xamante ne mooy Habib Daffé la mandataire Ousmane ko ba mu ñëwee mais xale yu ndaw yi sax yu jàngantoog tabaka daal mais xam nañ koy Habib Daffé boo génnoon ne kuy ayib dafe ayib dafe ak sawaram hmm? am yitteem eh, saa yuñ ko convoqué mi lu xew mi ngi dem jaabante DGE jaabante Sénat dem fu nekk hmm? ñëpp xam nañ kan mooy ayib dafe mu ñëw et sur le non mais si si li ñu remplir mais yàlla candidat Ousmane Sonko ñu tegal ko kafe jox ko kafe mu naan jox ko quittance mu dem waaye quittance yóbbul la quittance boobu mais quittance boobu victoire la ci parti buñ na tas nañ ko mu ex Pastef mandataire Ousmane Sonko ñoo ñu jox ko ko kon ça veut dire que gis nga mbiru Ousmane Sonko aussi nañu xam ne loxo yàlla da cee nekk da cee nekk parce que on a éliminé Karim Wade kenn coow jibul jël ko mi ngi ne ñu exilé Qatar ba léegi Karim déggoo ko mu wax te mënul nekk président par WhatsApp beneen bi mooy Khalifa sàll bi ñu ko bëggee sànq mais noonu lañ ko sànkee coow jibul mujjul fenn mais Ousmane Sonko depuis ko ñu entamé une bataille judiciaire boobu ba léegi. mënuñu fexe ba am ndam ci kawam tout le temps bu ñu demee ba ne non maintenant ça y jeex na tàkk mais nga gis feneen fu ñu mën a génne ay avocat am génn fa wala yàlla wane fa mbir moo xamante ne day wane ne le gars peut être ba léegi un ay et Ousmane Sonko ci ñu ko seet si biir prison mais jàpp nañ ne mais le gars se dit toujours candidat et il amul numéro 2 ba léegi moom dafa jàpp ne moom mooy candidat kon Ousmane Sonko jusqu'au boutisme la maanaam day dem ba. ba li ko ba ko yoon may mu jël ko mais euh, dafa am gàcce dafa am loo ne gàcce la ci Sénégal bu ñu demee ba ne boo waxee ak ñoom ñoom ba léegi dañ naan bon nous sommes dans un état de droit Sénégal état de droit la état de droit mooy lan mais état de droit mooy suñu juridiction yi ak lu ñu mën a tënk dañ ko war a teg fa lañ war a jaar juste ba si li mu def eh, lu mu def de droit mais il a dit le droit hein mais ce droit là a été bafoué faale wuñ ko ñu dem conseil constitutionnel euh, cour suprême ah ñu teg affaire u euh, compte max boo xamante ne yaakaar naa ne ay caaxaan la parce que mënoo jàppandi ko pare di ko wër pour jox ko pour jox ko nangam lan moo tax ñu bàyyi fi article L L bi jël article L 29 bi c'est c'est mais c'est mais c'est fait sciemment pour éliminer Ousmane Sonko définitivement donc mbir mi nekkatul mbirum sax politique dafa jéggi mbirum politique dafa dem ba mbirum haine lay nuru waa ji Euh, gars yi dañu am haine ci moom loolu ngay sentir ah quand tu les parler si ci plateau yi dafa man ne dañu am benn haine ci ci jëmm ji di Ousmane Sonko bëgguñu mu bokk carrément hmm? te Sénégal nañ xam ne ñoo ko bokk aussi. ñu jeexale ak foto bi nga xam ne day ci subaak léegi ñu ngi ko gis ci réseaux sociaux président ak Awoush Kitty bi nga xam ne moo toogoon doon ko saaga ku nekk itam ma nga cee yey yàbbi ban analyse nga ciy def. mooy la culture de la médiocrité culture de la médiocrité kese ah. loolu sax bëgguma ce wax parce que loolu je pense que ne euh, suufeel suñu réew la njiitu réew c'est pas n'importe qui te bu fekkee ne dañ dem ba Sénégal boo bëggee taxaw njiitu réew da nga koy saaga te ki saaga njiitu réew saagawul njiitu réew mais il a insulté tout le peuple sénégalais léegi nga ñëw di photo ak moom trois aussi yaa ngi dëggal ya mi xam nga loolu dara c'est une extrême gravité bu ñu demee ba ay nit yu médiocre ñu ñu warta déglu ñoom ñooy taxaw mais di diriger. réseaux sociaux yi di photo ak njiitu réew di photo ak soxnaam te au préalable ñoom ñoo taxaw daggi saaga yu bon ba mu metti askan wi metti ay gor yu mel na ñun ndax aussi lu ñu ñàkk d'accord d'accord ak njiitu réew mooy sunu njiitu réew du ñu bëgg mukk taxaw di saaga sunu njiitu réew waaye bu ñu gisee nag njiitu réew mooma delluwaat ñëw di taxaw ka ko saaga di ko fotow ça ouais, mais maintenant doo xam lan ngay wax c'est la médiocrité et ce qu'ils font c'est mais c'est cultiver la médiocrité te loolu gis nga yii yëpp nag dafa bokk ci combat yu ñu mëne maanaam mooy lii dafa war a dakk Sénégal Sénégal jamono ji on devait parler euh, de programme candidat bu ñëw ñu wax nan lañ mooy suqali Sénégal suñu or bi suñu zircon bi suñu lëccom bi suñu phosphate bi suñu nangam bi comment on va faire pour faire pour pour créer un nouvel ordre africain pas un nouvel ordre mondial fa la ñu waroon teg wax ji mais jóge nañ fa loolu boobu ba léegi jàppal bàyyi kii da bokk kii du bokk nangam bokk ay nit yu tekkiwul dara taxaw fële di photo président de la république président yoolu loolu nagu ko moo lay wane suñu institution yi war nañ ko xoolaat institution dañ ko war a respecter mais l' institution doit se faire respecter te genre yu mel noonu day wane ne ñun nos institutions sont plus ndax njiitu réew am na noo war a mel am na noo war a comporter wu am ko am na koo warul taxawal voilà lool la. ci wàllu aide la presse bi tamit je pense que dafa mel ni dafa am kumba mu am ndey ak kumba mu amul ndey. waaw yow da nga fay gis fu amul kumba ndey kumba am ndey kumba amul ndey non du aide à la presse bi rek réew mi da nga fay gis fu kumba mais réew mi foral benn camp tu n'es pas inquiété loolu neex ngay def aide à la aide à la presse bi mais xeexukaay lañ ko def loolu mooy dëgg aide à la presse bi xeexukaay lañ ko def ñi ànd ak ñoom lañuy ñuy compal lu duun lu baax jox leen. ñu àndul ñoom taxaw fi ñu taxaw garder seen ligne éditoriale ñu jox leen la leen neex waaw patron de presse aussi aide de la presse bi na yegg si ci journaliste yi ak ak ñi ci ci yi parce que tu vois des stagiaires nangam fii gars yi sonn ci le terrain aide à la presse boobu na yegg ci ñoom parce que bu ñu nee aide la presse rek ñu téye ko ñoom it nangam aide la non non la presse bi na yegg si ci ñi nga xamante ne mooy les ayants droit ñu sentir ne aide à la presse bi ñëw na mais bu ñëwee tout le doo ko dégg ci ñenn ñi. da ngay dégg aide à la presse rek tey euh, suñu milieu bi mais y la précarité gars yi dañuy dund dund lu doy waar dañoo am jom rek tey tey tey góorgóorlu kon je pense que mën nañu politiser lépp mais bu ñuy ba ci yu mel noonu ku nekk ñu jox la la nga lool bu ko defee euh, loolu day yokk sa stabilité et puis dafay yokk nguur euh, lu la contre contre contre sa cër bu ñëwee mu jox la ko day wane ne kooku mais grandeur nguur lay wane mais yii day wane ne. banditisme d'état lay lay wane rek waaw hmm. maa ngi lay jaajëfal bu baax a baax